wajal bi jaay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalalu seex Muhammadul Muntaqa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Muhammadul Xabbaan ibnu seex Muhammadul Faadil li sëriñ bi dénk mboolem daare alquraan yi ci Tuuba ak li ko wër ci kilifteefu sëriñ Bachiru Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Qaadir mi jiite comité organisation màggaluk Tuuba ci kilifteefu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ seex Gaynde Fatma mi jiite commission culturelle comité organisation organisation Magalou Touba jaa'izatu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul al aalamiya lil Qur'aanil Karim di jongante al Qur'aanil Karim bu ñu jagleel Serigne Touba Xaadimu Rasul mu bokk ci yënguti yi comité de organisation bi di amal ci jamonoy Magalou Touba ngir yaatal liggéeyu troisième édition bi ba murid bu nekk man cee tàbbal aw ñaqam tax na ñu sampal leen kuréel gu tudd soppe Seyxuna Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ci njiital président d'honneur ba Serigne Abdou Samad Mbacke Souhaïbou tey kuréel googu nag mooy liggéeyal Serigne Touba ci alquraanul karim waaye jaarale ko ci tawu jaaisatu Cheikh Ahmadou Bamba bii ñu di ci woo mboolem jullit yépp rawatina taalibe yi nañu ci tàbbee nag am na ñaari yoon anamuk jaayante ak anamuk hadiya anamuk jaayante gi mooy nga tànn saar wula la soob nga ni at mu nekk danaa ko jaayanteel trois cent mille anamuk hadiya gi mooy nga tànn saar wula la soob nga joxeel ko hadiya la nga man ay ca murit ngir tànn saar yu ngeen bëgg a jaayanteel ci liggéeyub Serigne Touba bii wala tànn saar yu ngeen bëgg a joxel hadiya la ngeen man wala yeneen i leeral woote leen ci 77 227 34 59 wala 77 531 99 04 wala 77 551 23 13 jaaizatu acheikh ahmadou bamba xaadimu rasul al alamiya lil quraanil karim liggéeyal sëriñ tuubaa ci alquraan bu raxul dara la ku liggéeyal sëriñ tuubaa ci quraan ñor ñëwal jaayante fii aw saar murit nay bar liggéeyub yàlla ak yonen la liy sikkul ku def tew fukk am ay junni ci koppar te ëllëg alquraan day ram mu aw xeetam ñëwal jaayante aw saar waaye murit day bar téréseer di benn waxtu ci bëccëg toftan na ñeen fukki simili ak juróom fii ci groupe Mouhalim numéro 1 ak ci As-Samadiyya FM 102 point 9 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu auditeur ak auditrice yu Mouhalim info ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew wala groupe Mouhalim di fi taataane ay xabaar tey alxamis benn fan ci weeru ut dëppoog ñaar fukki fan ak juróom ci weeru tamxarit ñu faram fàccee leen li nu am cay xabaar ci subaak léegi tàmbalee ko ci kilifa réew mi son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye chef de l'état daal dina jige dakaar tey jii dëgmal Nouakchott capital bu réewum Mauritanie la nga fa yóbbu nag mooy teewe waat goo xam ne Mohamed Ould Al-Ghazawani dana ko waataat tey jii ndax dañu ko falaat ca bopp réewum Mauritanie moom kilifa ki kon ñu daal di ko invité mu dem ngir teewe prestation de serment bi nga xam ne war na koo amal moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu di ko ñaanal yoonu jàmm ak salaam. sécurité routière appel à l' action kilifa réew mi son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye chef de l' état moom di tiisoo na lool waaye itam métti lu lool liy am fan yii ci réew mi ci bakkan yu bari yu rot jaar cee accident. ba tax na daal mi ngi sàkku ci élimaani jëw réewum Sénégal mu organisé te mu gën a gaawee benn réunion interministérielle ngir ñu waxtaane naka la ñu mën def ba indi kaaraange ci kaw yoon yi rawati ci lu ñeel événement yu mag yi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal mu mel ne grand magal de Touba ak mawludu nabi euh, bu ñu war a amal fële ca dëkk bu sell di Tiwaawoon kon kilifa gi daal bëgg nañu kon toog waxtaan xoolante ay bët waxante dëgg ngir nag lii am ci kaw télé bi ci ay bakkan yot daal di dakk mi ngi ko xam ne démb ci réunion conseil des ministres ci jamono jooji kilifa gi di woote ngir lu jeexal wala wàññi accident yi ci kaw télé bi am na beneen accident bu am fële ca Linguère ab bu metti am na démb ca Linguère ba jur nag bakkan bu rot ak ñaar ñu am ay gaañu gaañu accident bi nag nee ñu daal ñaari moto jakarta ñoo daal di daje daal di jur musiba buñ sukkandikoo ci RFM wax na ñenn ci ñi nga xam ne am cee gaañu gaañu di ñaar kenn ki dañ koo daal di gaaw rawale yóbbu ci hôpital Cheikh Khadim bu Touba keneen ki amee gaañu gaañu ko yóbbu ca hôpitalu hôpital Magatte ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk dañ leen yóbbu ca euh, urgence ci ak fàttali comme ni ma ko waxee léegi rek ngir dakkal lu ni mel tax na kilifa gi woote ngir ñu amal waxtaan sàkku ci rimaane jëriñ rimaane jëriñ Ousmane Sonko ngir ñu waxtaan daal fexe ba lu wàññi dakkal euh, accident yi waaye itam euh, rawatina nag euh, événement yu mag yi xam ne moom lañu ñu dëgmal muy màggal ak mawlidu nabi ONAS pourquoi Cheikh Dieng a été limogé lan moo waral ñu dàq Cheikh Dieng ci bopp ONAS kër sa xabaar gi di laas yéene kaay am na lu mu ci wax ñu faloon ko ci avril bi ñu génn ci boppu ONAS Cheikh Dieng moom day ñetti weer rek daal dekkoon ci boppu office national de l'assainissement du Sénégal jot tekk ndombal tànkam démb kon lañu ko daal di wàccee remplacé ko nag ku ñuy wax Seny Dieng moom day nee ñu ingénieur hydro hydrosciologue waaw hydrosciologue nañu moom la muy Seny Dieng moom moom la ñu fal léegi mu remplacé ko foofu bàyyi ko ci dogalub euh, wala bokk xabaar bi bàyyi ko ci réunion conseil des ministres bi ñu fësal démb ak dàqam nag jur na ay laaj yu baree baree baree bëri lan moo waral ñu dàqoo gi ci aju moom mii bokk ci coalition Diomaye bi nga xam ne jamono ji nekk ci bopp pouvoir bu réewum Sénégal laas yéen kaay di wax ni li waral dàq gi daal mel na ne ay mbir ci aw doxalinam ca fañu ko dénk bokk na ca laas day nee na dip bu mu ñëwee foofee daal gis na ne ay jege ñaalam gis nañ ni ay jege ñaaleem ak ay militant ñoom mel na ne daal fës nañ ca barab boobu waaye itam ñoo xam ne dañoo dëkk ci quartier jidda caaroy kaw ñu dëkkiti leen foofe ca ONAS te day mel ne amuñu benn compétence ngir mën a liggéey foofe ci ñenn ngi ñoom buñ sukkandikoo ci laas ñu sukkandiku laas ñu sukkandiku seen ay source benn ngoog ñaara ba itam laas yéene kaay di wax ne moom sax day fekkoon na bañ ko doon dénk barab boobu yi nangu jël ca njëkk maanaam daal daa gàntaloon jël gi ndax situation daal bi mu jàpp ne moo nekk ci kër googee daal bëgg koon jël ndax dafa jàpp ne ka ko yoroon di Mamour Diallo na mu ko yore woon dese naa jaaru yoon ginnaaw bi nag la mujjee nangu waaye nag ngir bëgg lu leer taxoon mu daal di benn audit boo xam ne jamono ji sax audit ba noppeegul waaye laata moo ak kon ñu daal di koy wàcce waaye itam laas yéene kaay itam di wax ni ak déggoo itam desoon naa am ci digganteem ak kii kilifaam muy ministre bi nga xam ne moo ko yilif ci wàllu gi mu nekk muy docteur Cheikh Tidiane Dièye loolu itam laas koy xamle source a nag wax ni jamono ji ñu koy dàq moom mii Cheikh euh, docteur Cheikh Dieng ci terrain bi la ko fekkoon muy liggéey Touba la nekkoon ngir nag daal ubbi fi benn antenne régional ci bu ONAS euh, waaye itam saytu daal lu ñuy liggéey bi fii ginaaw na ci lañ ko daal di dàq buñ sukkandiku kon ci kër si xabaar gi di laas yéene kaay ak source a laa sana gaañi saaxoo yóbbu na ci yoon aadama gay aadama gay di ab xabaar laa sana gaañi saaxoo de yóbbu na ko ci yoon porté ko pour diffamation ak injure publique ginaaw benn postu bu mu def ci page Facebook am moom Adama Gueye publier ko tuumaal ko ca daal ne dafa détourné xaalisu office national de l'assainissement du Sénégal ONAS loolu daal la wax ne dafa ko daal détourné ci fàtte nag moom mii jiitu woon na ko ci jamono président Macky Sall laata na gaa ngi saako nag loolu yi ko Adama Gueye waxal moo ko tax mu dal ko yóbbu ci yoon jàpp na ko dafa ko daal diffamé waxal ko lu amul daal dinay leeral wax ne kat plainte bi daal dina koy adressé procureur de la république bu gaane bu tribunal grande instance bu Dakar booba nag falaguñu ko dara bo maanaam le 2 juillet ñaari fan ci weeru juillet la ko yóbbu woon dal di koy porter plainte booba nag taxagul ñu fal ko daal jox ko benn ndombal tànk mais occu occupé wul benn fonction publique loolu daal kon leeral. audit et rapport des convocations et arrestations en képp koo xam ne day. tudd nañ la ci réew mi ci wax ne dangaa jël alali réew mi booy boo nga wàcc tuutib sëriñ wala nga ñëw ci man mi mu àllim ma ñaanal la gaa ñi daa mel ne ci seen kaw lan jëm de buñ sukkandikoo ci kaw sa xabaar gi di la témoin ngir wàccoog engagement yu ñu jëloon ci jamono gi ñu doon laaj réewum Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sàkku ñu piblier rapport yi bawoo ci OFNAC ak yeneen xeeti code de contrôle yi nekk ci réewum Sénégal la ko tàmbalee atum 2019 ba 2023 inspecteur général d'État itam moom ba léegi nag ay rapport am ñu ngi koy xaar fekkoon na itam ñu yebaloon ko ci toll ci soixante-dix direction ngi mu dem fa gëstu xool ba xam amut foofee loolu daal def nañ ko fa ci wàllum détournement gi ci aju ngir daal di koy leeral audit yi kon waral ñu identifié woon ay warab ci réew mi itam demoon fa bokk na ci SENTER ak ay warab yi bare bëri daal ay direction yu bëri ci réew mi dem nañ fa ay AIBD e fu bëree bëree bëri kon dem nañ fa ngir daal fa ay gëstu setit fu bare bay kon dem nañ ba ci asirut kon jàpp leen ni buñ sukkandikoo ci kaw sa xabaar gii di la euh, journal bii di le témoin day nee na audit yooyu yi ICA defoon yàggatul daañu ko nag maanaam lañ bët xool la ca nekk nu mu demee gaañu ngi tudd nag ñu liggéenti seen ay mbir ndax kat surnal bi de témoin nee na rapport yooyu daañu ko rapport yu Cour des comptes ak OFNAC rapport yi moom daañu ko jébbal ci lu yàggatul procureur de la république bi procureur de la république bi nga xam ne moom la ñu war a nommé ci lu yees ndax daal li mu bind koon day mel ne Abdou Karim Diop mi fi nekk dañ ko woon a remplacé jaare ko ci waaw loolu la wax sax dañ ko woon a remplacé jaare ko ci réunion di conseil supérieur de la magistrature fal ku yees procureur de la république bu yees boo xam ne suñ ko falee nag rapport yooyu dossiers yooyu moom jox loolu la ko daal di wax nee daal lii de firndeel détermination bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak limaane jëwriñam jiiri Ousmane Sonko am nañu ko ngir fas yéene daal topp li ñu waxoon mooy reddition des comptes te gis nañ ne askan yi bëgg nañu ko lool ngir daal képp koo xam ne jël na loo war jël ñu lijjanti ko nee ñu sax loolu moo waral bu ñu sukkandikoo ci la témoin daal nee na ñi ngi commencé defar lenn ci ay cellule yi nekk ci prison yu rëbës Cap Manuel ngir dalal faral lenn ci ay détenu ginnaaw bu ñu leen jàppee boo xam ne daal jàpp na kon dañoo jël àll askan yi moo jàpp gi ñi nga xam ne daal dañoo doon def ay mbir ci régime bi fi nekkoon ci alal askari moom yàgg jàpp gi yàggatul daañu ko jublu loolu la wax. ba tey moo xam tam rénovation yooyu ñuy def day fàttali bi ñu doon préparé ngir jàpp Abdou Karim Wade Idrissa Seck Khalifa Sall ak ancien président tchadien bii di Hissène Habré nga xam ne dañoo demoon kon waajal ay warab yoo xam ne bu ñu leen jàpp fa leen fas yéene yóbbu lool daal kon wax nga daal ne ñu am na ay responsable yoo xam ne ay crime financier lañ nar a toppee tey mandat kon moo ko nar ginnaaw bi ñu censé procureur bi fi nekk kër Cheikh Ba gi la témoin mooy baax xabaar bi plainte contre des journalistes de E-Media réplique de Mamadou Ibra Kane à Abdoulaye Sylla Abdoulaye Sylla déposé ab plainte ci taabali procureur de la République bu tribunal grande instance bu Dakar contre Mamadou Ibra kan mi nekkoon directeur général bu groupe de presse bi di E-Media ak fa wutu di Alassane Samba Diop di leen nag tuumaal abus de billets sociaux ci benn bu mu def alxamis tey jii moom taskatu xabaar bii di leader bu mouvement politique Demain c'est maintenant daal dina ci tontu. nee na homme d'affaires Abdoulaye Sylla Ecotara ak ak ses nouveaux mètre maam daal ak ñu mu àndal dañoo bëgg likide groupe E-Media daaneel ko tas ko. abi de biens sociaux la wax li ñuy wax dara amu ci nee daal loolu amul teg seen fexe pexe def ngir fas yéene daaneel groupe de presse bii. am ñu nu ci àndal procès boobu yi ngeen ngeen teg xam leen du jàll de loolu la Mamadou Ibra Kane wax tontu ko ci fàttali source a ñoo bindoon wax ni ñoom ñaar ñii kat Abdoulaye Sylla mii daa jàpp ne la ñuy doxalee ca kër ga jaadootul ndax dafa jàpp ne ñoom dañoo wéy di exploiter kër gi donte nag euh, ci jamono joo xam ne kon genn wàllu capital social bu euh, foofu daal daanaka daat nañu koy ñàkk gi caaju ay jafe-jafe yoo ne am na ci kër ga ak yu mu fa seetlu yoo xam ne jàpp na ne moo waral mu yóbbu leen ci yoon moo waral kon itam Mamadou Ibra Kane mi génn tontu ci fàtt nag moom jiite woon na ko waaye jiiteetu ko ndax addugoon ci wàllum politique moo taxoon mu tekki ndombal tànkam jox ko Alassane Samba Diop. un mandat d'arrêt international lancé contre El ja Dia membre de l'APR détournement ba ñuy wax ci diggante FONSIP ak Crédit Mutuel du Sénégal moo ko waral. benn membre APR bu yëg turu El Hadji Dia daal nañu koy lancé mandat d'arrêt international ñu sax leader la ci parti politique bii di APR dañu ko tudd ci mbirum détournement ba ñuy wax ci diggante FONSIP ak crédit mutuel xam ngeen na xabaar bu yaakaar naa jaar na fi ma doon leen ko wax lañ ca wax kër xabaar gi di source a nag ñoo révélé kon wax ni moom moom yi dañ ko tudd ci mbir moom ba tax na kon daal nañu koy lancé mandat d'arrêt international ñu ne moom Alla Gueye mi occupé woon na ci lu yàggul poste poste de coordinateur départemental Benno Bokk Yaakaar ki Ziguinchor moom président Macky Sall daf ko wàcce woon ci poste poste bu mu ko nommé woon ginnaaw bi nommé waat ko en tant que mën na marque bokkoon ambassadeur itinérant waaw itinérant waaw ambassadeur itinérant boo xam ne président Macky Sall kon faloon na ko moom itam nee ñu tuddoon nañu ko tuumaal ko ci wàllum détournement ci fond détournement doo foo xam tuddoon nañu ko ci kon ca course bu course bu Bambey enquête bi mu ubbi ci mbir moom yi waral na gendarme yi gendarme yi kon daal di teg loxo bu ñu sukkandikoon ci source a ay nit yoo xam ne itam nee ñu membre lañ ci APR ci bis boobu ñu ubbi woon enquête bi kon seenu gësu ñeenti nit ñeent ñoo xam ne seen ay tur kenn ki mooy turu enn kan oo Camara Fay Njaay ñooñu ne ñu ay membre lañ ci APR ak itam koo xam ne mooy chef d'agence di crédit mutuel bu nekk fële ca Bambey information yi nga xam ne moom la source a wax ci mbir mi dafay lu doy waar de ndax kat ñoom nee ñu montant bu toll ci war a toll kon ci deux cent wala bokk ay millions bokk ay millions montant bu war a ci ay millions la ñu jële woon ci Crédit Mutuel du Sénégal jaare ko ci wàllum FONSIS waaye ñan waxoon ne ñoom la ñuy jox xaalis bi day ñoom jotuñu lu may deux cent mille francs CFA képp la nag daal di ne ma yi gisuñu ko loolu nag moo tax ñee ñu daal alxaaji bi dañ ko tudd aw turam moo tax ñu daal di koy lancé mandat d'arrêt international ngir teg ko ci teg ko loxo ginnaaw enquête bu nu ubbi ci mbir mi Italie deux ressortissants sénégalais arrêtés en moins de quarante-huit heures police bu réewum Italie teg nañu loxo ñaari doomi réewi Sénégal kenn ki ay atam mi ngi toll ci quarante cinq moom lañ njëkk jàpp fekk ci moom nee ñu daal ay comprimé ay ay doom garab yoo xam ne daal ca la nekk ci biir mbirum dorog la dañu ko jàpp jaare ko ci boole gu ñu ko boole police ñëw ci këram teg ko loxo moom nag jamono gi jàpp nañ ko ba jébbal ko parquet bi ab audience nag nañ waajal nañ ko ci moom mu war a daje ah, parquet bi alxamis tey ji keneen ki ñu teg ko loxo fekk ci moom lu war a toll ci kilogramme boo xam ne daal ci gàttal dorog la rek këram lañu ko jàppe police dañu jot ay kiy kër gi nga xam ne fa la nekkoon ñoo ko daal di boole ay waxtu lañ ko teg ginnaaw bi police ñëw xaar ko mu génn ba mu génn man bëgg a dem daal ñu ne da doon jaayee lam yor ñu teg ko loxo daal ko yóbbu perquisition ginnaaw bi amal nañu ko ci këram dem fa fekk fa daal cocaïne boo nga xam ne moo la ko jàppe ak espèce ci xaalisu euro ak yu ni fekk itam daal ay matériels yoo xam ne daal matériel emballage la ci wàllum médicament foofee ci réewum Italie le PDS célèbre cinquante ans d' existence parti démocratique sénégalais PDS daal dinay célébré démb fanweeri fan ak benn ci weeru juillet juróom fukki at yoo xam ne am na ko ba ñu taxalee parti bi ak léegi ñu ngi ko taxawoon ci atum 1974 ki defoon di avocat bi di ancien président du Sénégal maître Abdoulaye Wade yàlla na fi gën a yàgg te gën wér fédération urbaine bu PDS bu Thiès ki ko jiite di Mor Diouf amal ab mobilisation ci kanamu siège part bi PDS ci cérémonie bi nag militants yu baree baree bari daal nañu bàyyi ko fu nekk daal di ñëw ñu gën a nag wane daal na ñoom tey lañu ñu gën a gëm PDS tey lañu ñu gën a itam nekk ci biir PDS gën itam nekk ci ginnaaw di jàppale ki nga xam ne moo di euh, ki nga xam ne jamono ji mooy secrétaire général action di Abdoul Karim wadd secretaire général fédération urbaine bu Thiès di woote nag mobilisation dajalewaat troupe yeeg yëpp di invité yi daal militants yi ngir ñu gën a kon taxaw dox ci lépp luy tax PDS jëm ca kanam mandat d'arrêt international la ñu lancé contre Alassane Diop ñi ko def di réewum Sordani Alassane Diop moom yi ñaari at kaso lañ ko daal di condamné foofee jamono ji nag mi ngi ci loxoy kilifa réewum senegal mbirum Alassane Diop doomu réew Sénégal la bopp jamono ji dañu ko jàpp fii ci réewum senegal ginnaaw mandat d'arrêt international boo xam ne waa Zor ñoo ko teg ci kawam ak jàppam nag daal di ne nag jur jamono ji question yu complexe ci wàllum ndax dañu ko extradé génne ko réew mi te doomu réew senegal dañ ko condamné par contumace condamné ko ci lu mu téewul ca soldani ngir wàllum association de malfaiteurs ak escroquerie moom Alassane Diop moom mi nag jamono ji mu ngi téye fii kilifa réewum Sénégal ñoo ko téye ngir wax wax nag lan mooy doon ëllëgëm Alassane Diop defee nañ ko ñaari yoon ci kanamu parquet bi autorité judiciaire yu Sénégal ñoo war a décider ci lan mooy doon ak ëllëgëm dañu koy extradé wala dañu koy téye fii léegi ko daal wax ne justice bu réewum soldani dañu koo àtte ne ko moom Alassane Diop mii ci ci mbiri association de malfaiteurs ak escroquerie moom nag Alassane Diop weddi na mbooleem li ñu koy tuumaal foofee ba daan ko question principale bi nag mooy xam lan mooy doon ak ëllëgam lan la ci kilifa ji dox dogal dañu koy extradé génn réew mi jébbal Soodani wala dañu koy téye fii en tout cas ci droit international wàllum extradition extradition koo xam ne ci am réew la dëkk loolu moom dañu koy faral di tere sëf sëf nag mu nekk daal loo xam ne kat lu spécifique la loo xam ne daal dafa jaare ci kon ay accords bilatéraux wala multilatéraux bu fekkente ne accords yooyu daal amut ci règle li nga xam ne mooy droit yi ñu appliqué senegal mën na ko mën na koo bañ a extradé téye ko ci am réewam mu tëdd kon li ñu ko tëj kaso fii ci réew mi alternative daal boo xam ne jamono ji moom la ñuy xalaat mooy tëj ko ci réew mii mu tëdd li mu tëdd fii bañ koo génne réew mi loolu nag dafay impliqué nag séduction yi Sénégal yi mel ne cour d'appel ngir daal ñu wax ci décision yi ci ajoog la nga xam ne moom la waa sur euh, soddani def ci moom ak yu mel ngir nag mu tëdd fii ab waaye daal jàpp leen ne fi ni daal ñaari option yi ñoo man a am benn ñu génne ko réew mi wala ñu téye ko fii Sénégal nag day tànn ki ñaar benn kon mu daal di xool ci loo xam ne obligation la jaar ci international wala nag mu jaara ci li ñuy wax principe de souveraineté daal daal di sàmm dooma doomi réewam téye ko ci réew mi mu tëdd fii kaso lañu ko tëj en tout cas daal ne ñu jamono ji kilifa teg nañ ko loxo fekk mandat dara lañu ko teg ñoom waa soddani muallim Touba Xelkom pièce d'étage nekk ci Touba Darou Khoudoss